faut aller jusqu'à ce que l'université soit régulée kenn du fa duggati te jàngoo. kuñ dàq nga génn ku ku mënul lu ñu dàq. tout à fait euh, kii ingénieur yi nga xamante ni yow nga ñoom ñooy politique sont des. dañuy yàlla fi nekk ñi fi nekk nii wala boog ñi nga xamante ni ñooy réussir ci université bi ñoom enseignants yi xam xamante ni ñooy ñooy politique ñoo leen jàngal ba ñu réussir léegi yow pourquoi pas euh, te euh, politiciens yoo nga xamante ni ñoo nekk ci corps en en yi yàgg. depuis yàgg na ñu ñu ñu ñu ñu politique ci ci régime yi fi yi fi nekkoon yëpp mais la tax nga bëgg a non ñu ngi def politique juste non non ils sont venus dans la politique juste après Abdoulaye mais ñoom ñoo jàngal ñoom ñoo jàngal xale yi xale yi réussir. ñu leen réussir c' évident parce que c'est un curriculum c' est l' ensemble des élèves ñaataay échec ba dem université c' est à dire leen jàngal man dama ne s' il y a des problèmes dans l'enseignement au Sénégal ce sont les enseignants C'est parce que eux qui prennent que la grève il faut entraver le curriculum c'est pas responsable je les condamne pourquoi et comment parce que un enseignant hmm. pour nga pour nga invalider c'est très facile. de entrer en sixième jotee euh, concours mais ils ont acquis les connaissances c'est ça leur faute. ils ne remplissent pas les conditions le le le contrat de performance ils ne le remplissent pas au Sénégal euh, on peut être arrivé même à un président comme moi un jour day parce que pourquoi ils n'enseignent plus les élèves normalement dans le curriculum normal la grève syndicale la grève de mouvement syndical c'est quoi dire c'est de faire c'est de contraindre l'employeur à satisfaire les revendications mm-hmm. mais la méthodologie ne peut pas avoir des dégâts collatéraux vis-à-vis des élèves tellement ils faire def des dégâts collatéraux vis-à-vis des élèves mais ils sont on dirait qu'ils sont pas intelligents On nous dise la vérité mm. vous avez les examens et concours vous vous le faites pour ne les organiser pas c'est très simple mm-hmm. vous validez pas mm-hmm. mais nga jàngal xale les ames nga jàngal leen de A à Z Vous ne pouvez entrer en sixième jot vous refusez de faire le concours mm-hmm. mais nous, nous, nous mais taxaw di di jël ay xalé di tardé 15 jours bu ñëwee ci classe ñi di saboter ñi bok fële di génn xal yu gërëm mais mané lool ça mérite des sanctions. Mhm. il faut qu'il entre peut-être bu examen jotee ñu bañ du duñ examen état bi ñëw négocier ak ñom dans cette phase buñ paré nak buñ paré nak mhm. c'est très simple sax bu examen jotee dañuy bàyyi ñu def examen ba paré mhm. kenn du corriger. Ah, waaw ndax au moins ñu bàyyi xalé ñu la kenn du corriger. kenn du corriger personne ne corrige parce que pour corriger il faut des milliers d'instituteurs et des milliers de, de mm-hmm. professeurs. Oui. mais quand du corriger jeex là mais doo jël yow doo doo lor ay gone ba pare ne état fay ma am na état géré bi un jour façon bi gars yi gëree fi xaw ma fu mu may ils yow yal na fi fekk. je le jure da ngeen mës a gis ku d'ailleurs d'ailleurs gis nañu. que euh, leen di dàq bëccëg recruter ay nit. gis nañu le SAES e au même titre que les étudiants ñuy réclamer ñoom tamit la réouverture des des des des campus.